asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xam ne ñooy safoo di seen Sénégal te ñoo ngi leen nuyu bu a baax te di leen ziar di am mbégte kontaan te ñëwaat ak seen émission sama mbër sama mbër nag tey moo ngi ñëw fi nga xam ne moo di golf si duni ñoo seet un jeune lutteur très prometteur du nom de Weuz Diambar nekk écurie Yaraax Weuz moo ngi am euh, moo ngi moo ngi bëre treize treize combats am neuf victoires ak quatre défaites Weuz ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di la ziar di bu mag di Sénégal auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim hu hu caca hu hu caca hu hu caca hu hu caca waaw dugg si bi am na doole de waaw nuyoo bay nekk noonu fii Bango la hmm. loolu mooy sunu slogan hmm. moom la ñuy dégagé moom la ñuy nuyoo moom la ñuy terminé mais slogan fu mu jógee waaw sunu coach rek sunu coach wu caca moo nekk nii hmm. moom moo génnee slogan woowu noonu suñu entraîné su méttee rek. Ah. moom la ñuy dégager quoi. fàtte hmm. coono bi quoi. mais fu mu jugee fu mu jugee. lan mooy xanaa ma wax ko xanaa après ngeen laaj ko rek. mais coach slogan fu mu jugee coach. slogan bi bàngoo la. Ah. waaw duñ la massacrer ba nga jeexal tàkk tàkk tàkk. Ah. du la wayla na la rek da ngay fàtte coono. oui quand c'est dur sa le dur passe. Mm-hmm. lu mu métti métti métti métti day jàll. Mm-hmm. foofu la jógee quoi. c'est très pour mentalu ñi nga xam ne mooy sportif yi damay gis gars yi commencé mer. Mm. day am benn instant boo xam ne mbëri sax duñ may bëgg dóor mais ma leen dégagé loo rek lépp fàtte affaire bi coono bi. Mm. mais duñu arrêté rek coono bi ñëwaat rek ko si. Mm. motivation la rek. lu am solo la si yëpp. voilà loolu la ñu bëri si loolu la ñu réeré quoi. c'est important pour coach yi di ko di ko utiliser. ñu am benn genre kii boo xam ne dégagement la. xam nga pour fàtte coono quoi. te man du ma def entraînement bu métti laay def bu jaar yoon nag. Hmm. waaw mais coach tey entraînement bi métti na. waaw mais tey dama tey dama ko wàññi sax. Ah. parce que oui dama ko wàññi parce que gars yi dama ñëw tey ñu ganale ma bisaab moo tax ma wàññi affaire bisaab bi waaw bi moo tax ma bàyyi. mais ñun amuñu bisaab. incha allah ñoom dana leen ko jox. non ñun non dañoo. choc wuu. wucaca Wëz naka mu. sant yàlla naka séance bi tey tey lan la consisté woon. waaw ginnaaw bi nuyoo nuyu sama gars yi nga xamante ni ñooy samay compagnon de guerre. Hmm. ñi nga xamante nii ñooy mbër yi fi nekk. Hmm. muy ñoom Africa suñu tête de file. Hmm. ama ama bu yaraax. jamaa noir. laay. laay ñomboor xam nga. Mm. ak mas mm. mbër yi nga xamante ni nit ñëpp ñooy ànd ñoom baara mbel soog mm. gaa yëpp écrit bi bawuma kenn xam nga ñoom jakarta gaa yëpp di nuyu ñoom ñëpp di leen nuyu di berelu nuyoo suñu kusu wu caca di nuyu waa yaraax ak waa ngaay yëpp képp kuy bëggee wës jàmbaar rek wës jàmbaar moo ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu mm-hmm. wës jàmbaar tur fu mu jógee waaw wës jàmbaar moom tur la mooy sama tur xam nga jàmbaar moom mooy dafa nekkoon dama nekkoon si koñ bi doon booy bi nga xamante yi nii mhm. moo gën a téréewul téréewul na waaw gën a ñemee lu metti gën a mhm. ñemee lu xat mhm. waaw grand yi moom daanu waleen may dara man ma doole sa soo ma liyee dama lay saaga nga taxaw waaw ma dóor moom su ma mënul ci dara mooy loolu naa toj sa bopp waaw gars yi naan nag kii moromam yi moo si gën a doon ko quoi jàmbaar bi foofu la jógee foofu la jógee quoi ci may booy laa ko mais wala la dugal si làmb waa làmb amour rek moo ma ci dugal. Mm. waaw ndax maam buy bëri aw ma mbokk buy bëri. Mm. amour la rek. Mm. moo ma ci dugal waaw fréquentation. fréquentation kon da nga fréquenté mbëri. waaw di fréquenté mbëri comme suñu grand ñoom Fall Yaraax. ñoom Africa di leen seetaan rek ba dugg. kañ nga kañ nga commencé bëri. Euh, incha naa date exacte bi. waaw mais naa ne ay deux mille deux mille deux mille dix sept deux mille dix huit yooyu daal. sa premier combat yaakaar woon. premier combat sama kii la woon. ku moom maa kii. Hmm. ku moom làmb. Hmm. waaw loolu. Hmm. lan nga lan nga gën a retenir ci combat boobu noonu. waaw combat bu combat boobu moom combat bu gaaw la woon quoi. parce que maa ngi fàttali ko jour boobu samedi ak dimanche laa waroon bëri samedi bi. maa amoon combat mbapat. ma waroon bëri samedi bi combat mbapat war a xëy dem bëri ji arrêt. mais nanga nga mën a enchaîner combat euh, mbapat samedi euh, jouer di daal di daal dimanche. lu jafe nag jamono jii nii. waaw non yëfu yëfu jeunesse la woon rek. xam nga mm-hmm. combat bi dugg ci écurie bi. Mm-hmm. yaay ne ma da nga koy jël tombé jëloon naa avance mbapat bi ba pare. mu mm-hmm. tombé ma ne yëfu góor la. pourquoi pas ma jëlandoo ñaar yëpp. bëri jëm bëri jëm. waaw loolu kese la woon. yàlla hmm. suturaal euh, sa coach di préparer combat yow bi lan la lan la demee woon. waaw lii moom chaque jour dañ koy def quoi ñu mooy ñu am combat mu ñàkk am combat. Hmm. liggéey bi moom chaque jour lii hmm. lay demee quoi. du combat bi kese moo tax ñu koy entraîné ins bi dama nekk hivernal am combat di leen ñaanal ñoom ñëpp képp ci am combat yàlla may si ndam ñi amul combat yàlla may leen. yow fii ngay préparé hivernal quoi. waaw des fois dañuy dañuy changé quoi du fii toujours quoi. Hmm. dañuy dem rek fu ñu fu ñu yaakaar ne doole am na fa rek. dañuy hmm. jëli ji ko. Hmm. waaw. hivernal bi entraînement hivernal lan lay consister. waaw entraînement hivernal bi dañuy ñëw change rek. comme saison bi tëj na nii. mbabat amul te combat bi des na dañuy ñëw yokk ci renforcer rek yokk doole yokk cardio. moom la ñuy liggéey. par journée ñetti séance ngay def. waaw ah, jour bi deux séances rek la deux le matin looy def. le bi mhm. mhm. ah, nga ñëpp xam nañu entraînement euh, calories yi ngay dégager. Mhm. soo entraîné pare est-ce yi nga xam ni moom nga dépensé di nga ko mën a indiwaat lan ngay jël. waaw ñun yàlla dafa dogal ne dañoo am coach boo xam ne professionnel la. du coach wàcca du coach yi nga <laughs> xamante ni. mooy wàcc ca ah? du ko su njalaxaan yi nii xam ne eh. ngay ñëw ñu lay digal yooyu xam ne ñun hmm. ñun ñun lu ñuy def rek suñ hmm. ko hmm. fii bul toog fii ñun dañuy contrôler ci lépp parce que parce que hygiène de vie dafa baax ci athlète bépp athlète muy am hygiène de vie bu baax moo tax man dañuy contrôler nelaw yi ñuy nelaw dañuy guddi daf ñuy day xool ba xam ñoo ngi en ligne nelaw nan wala nelawuñu suñuy lekk tey rek moo ci mujj lekkal del del lekk bu baax lekkal lekk bu am vitamine mm. bala ngay ñëw entraînement mm. ah. yooyu yooyu yan aliments ngay faral di jël waaw non aliments mm. yooyu rek yi ñu lekk nen mm-hmm. xam yooyu noonu des fois am na yoo xamante ni ay orange yooyu dañ koy lekk pour renforcer suñu muscle quoi mais nen yi baaxatul de ah nen yi pourquoi nga ni baaxul nen kay baax na. nen yi ay OGM lañ. Ah. nen yi moom ñuy jaay moom baaxatul moom du lay apporter dara. ah, ah mais comme nen comme nee baax na rek peut être. nga dem jënd nen ordinaire yi c'est plus prolifique quoi. Ah. moo gën a baax. waaw leçon leçon réussie. waaw jot nañu loolu kon. <laughs> Euh, euh, euh, la moo indi sa ak ndigal. waaw loolu yëfu yëfu làmb la rek hmm. ñëw ruube ko. Hmm. loolu rek laa jublu woon quoi. mais ah, ko am na combat. Ah, mais ah, da su xasee ba signé contrat amatul ruq bi mais mais c'est anti sportif de. ah non mais man anti sportif eh, contrat su xasee am signé na la kañ la ni la kañ ko. Hmm. le 18 le 12 novembre. Hmm. suñ bëree ba pare. Hmm. contrat bi jeex na mais bi maa ngi nii moom. daje moom day tànk. foo leen day tànk. non Kolante warul tàng. Ah, jour combat bi moo jour jour combat bi war a tàng. non chaque jour day ba lu ba jour ji. jour ji kese. non jour contrat bi du jour ji kese. non jour ji moo war a tàng ak. fees fees yi a ñu bëri. ba le jour su bëggoon chaque jour ma fekk ko fi muy entraîné ñu bëri Dakar mu dem ma dem. li nga wax noonu grand. barki Seydina Mohamed su su su ko neexee. na hmm. indi xaalis ñu teg un million un million ma fekk seen tool fi muy entraîné ñu bëri avant combat bi chaque jour ñu ñëw ñu teg xaalis ñu bëri. li nga wax ni kenn ku nekk jël xaalis bi nga xaalis bi nga tegee nga kar nga préparé ji sa bopp wóolu wóolu nga sa bopp de chaque jour ma daan ko ba douze wóolu wóolu nga sa bopp de du question wóolu sa bopp nit nit nit nit da ngay da ngay da ngay wóolu yàlla gëm sa bopp hmm. waaw loolu hmm. mais nag ngay préparé combat bi waaw comme d'habitude rek parce que excès de confiance bi ngay dégagé moom xam naa sa coach moom wu caca moom xam nga préparateur mental la. ñun mënuñoo daj lu metti fii di metti am lu metti loo xamante ni dañ koy daj fii. Hmm. dem di jàkkaaru suñu adversaire wala di am combat di am di jiixi jaaxal naan ba xam kii mën nañu koo daan di am lu ñu ciiti non non ndax li ñuy daj fii duñ ko daj fële te leer na ma barke Seydina Mohamed li may daj du ko daj. Hmm. ñi ñuy àndal te nekkuñu ay mbër sax ñooñu li ñuy daj moom daju mais loo nga wax loolu dama ko xam rek xam dañuy teg ak ñi nga xamante tamit accompagneur yoo xamante ni ñoo xamante ni du ñu ay mbër. Hmm. entraînement bi ñuy dajoo bi ñuy daj moom ndigal du ko daj foofu rek laa ko teg. Hmm. combat bi si lan mën a jeexee. waaw mën na jeexee ci lépp. Hmm. yàlla moo xam luy xew la douze fois. Hmm. mais ñoo ngi ñaan yàlla ak lu mënti xew yàlla yëkkati suñu loxo. yóbbu ndam bu bis ba di xeex. naxaar lépp ah, xam moom déggoo. lépp mën na xew lépp kay jeexal nay wax. <laughs> lépp lépp jeexal nay wax lépp kay um umdu na lépp. waaw. Mhm. mais ndigal euh, da nga nekk benn lutteur boo xam te ne euh, prometteur. mais lan moo freiné sa élan. waaw loolu loolu ak àdduna ñoo ànd. Hmm. àdduna dee oo la parce que gars ñoo xaar fu gën a fii. waaw loolu àdduna la àdduna la dee oo et hmm. fois. des dem. Hmm. nekk ci ay obstacles yoo xamante ni ñooy baare sa mais obstacles yooyu noonu après njariñ la ma la ma jural rek. tiré naa ci ay leçons quoi. yan enseignement nga tiré ci obstacle yi. waaw tiré naa loo bëree loo xamante ni dama koy garder pour man quoi. mais da ko war a partage ak mbokki internet yi nga xam ne ñoom ñoo ko laaj ñoom ñoo ko bëgg loolu sama vie sama hmm. sama yëfu la hmm. sama lekk la waaw dama hmm. parce que gars yi bëri nañ ndigal level bi mu ne waroon na fay passé waaw mais loolu loolu du dara loolu du dara waaw parce que course de fond la rek course de vitesse quoi course de fond la mooy <laughs> la mooy différence entre course de fond ak photo vitesse waaw course de xam course de fond mooy fi nga ñu jëm dafa sori te départ bi nee bëreet nii di lii soo doo yegg. Ah. waaw mais faa nga am endurance quoi endurance ndànk ndànk rek yegg moo am solo quoi te gëm nañ di yegg. dinañ yegg quoi hmm. mhm. mais gars yi naan ndigal mooy lidooru jaaytaar yi mbëru jaaytaar yi. yaa ngi jaawale ndigal ak wóos. dégg wóos mooy wóos mooy mbëru jaaytaar yi. lan mooy moo jaaytaar. ah gars ñoo koy wax de. mooy jaaytaar moo bi laa bëgg ko laaj. non moo bi da nga dégg moo bi laa bëgg nga définiral ma ko mooy lan la quoi. Diaydar ku bëgg boppam de. Ah, jeex na ko waaw yow bëggoo sa bopp. Ah, waaw ah waaw bañ boobu. <laughs> nit ki da ngay bëgg sa bopp. waaw ah, bëgg sa bopp balaa nit ñi di la bëgg yow yaa njëkk a bëgg sa bopp. Hmm. parce que am na ñu bari loo xamante ni bëgguñu ma ndax làmb wala dara. Hmm. bëgg bi ma bëgg sama bopp loolu la ma bëgg te te loolu lépp mu jàll sax. Hmm. ñun ñun ñun ay taalibe Cheikh la ne taalibe Cheikh moom fu mu jaar lay bëgg boppam. te foo gis nga xam ne kii nii macha allah. Hmm. waaw ñun moom te defar sa image dafa bokk si athlète. voilà te ñun danoo danoo danoo danoo image. Hmm. non danoo xam image suñ ñu mën a yóbbu. Hmm. parce que image mën a tax nga gagné tey sponsor yoo xamante ni. image mooy tax nga gagné ko dafa war a dépassé foo xamante ni. mooy loolu parce que ñun suñuy royukaay ci làmb suñuy nawle ci làmb du du du yenn booy yi nii ci làmb ji. ci ay taysen lañ ko lañuy xool ça se ça se voit que am nga encadrement bu baax am nga staff bu baax boo xamante ni am na am na ay bopp yu la wër su may dem stade sax dañ naan ma lii ngay sol simil lii waroo sol lii waroo waroo waroo waroo des fois damay sol kilo sa bëgg a dem stade ñu ma non lii doo ko sol dama simili ko dama ko su rek damay dem dimanche bi passé. te mu nekk ay détails yoo xamante ni gars yu bëri duñ ci bàyyi xel. koy xeeb te ñu bëri ñoo xamante ni ñoo ngi ci au niveau bi. ñoo ngi ci VIP yi te loolu duñ ko bàyyi xel. te loolu nekk na lu am solo. ku ñuy xaar wala ku ñuy séntu. Mm-hmm. waroo mm-hmm. nit ñi suñu lay xaar rek dafa war a am foo génn fu spécial. Mm-hmm. parce leen xaar tey wës na lay ñëwee. loolu rek loo xamante ni. benn suspense lay doon. comprendre nga fi may waxee suspense boobu noonu ak image boobu noonu ngay am day tax gars yi bëri di lañ gën a gën ñeme song bëri ñu bëri ñu lii la parce que am na ñoo xamante ne am na sponsor yoo xamante ni mm-hmm. pour ñu ci image nit ki la ñuy xool mm-hmm. pour jox la produit nga nga nga nga nga nga publicité leen ko mm-hmm. wala ñu ñëw bëgg a adhéré ci yow pour nga ànd ak yow liggéey soo xoolee may Tyson bi mu fi nekk mook paay ñoo fi nekkoon mais mook paay bokkoonuñu bokkoonuñu dund quoi. Mhm. danga xool Tyson li doon dégager. Mhm. ak paa yi li mu doon dégager bokkul. Mhm. moo tax Tyson sponsor yi ñëwoon yëpp. publicité yeeg moom moo ko doon moo moo indi sponsor ci làmb ndax image moo rafetoon. image moo doon attiré gars yi. pour ñu ñëw ci làmb yi image moo doon tax ñu koy taf ci tableau publicitaire yi. comprendre nga. da ngay neex a bëgg quoi. yaa ngi lancé message bu important boo xamante ni képp kuy mbër war naa dégg li ngay wax. làmb dafa war a dafa a image dafa doy waar te day day partout dans le monde. Hmm. moo tax heure boo ciy def rek. Hmm. da nga war a correct. Hmm. xam nga dégager loo xamante ni même ku bëggoonul sport bi ngay def sax. sa image rek da koy neex. ba mujj gi muy ñëw di la suivre ci sport bi ngay def ba bëgg day attirer ay nit quoi. say moment de détente lan ngay faral di def. Euh, li may faral di def bari na. comme comme comme comme comme ñëpp ni ñuy def rek. comme boo entraîné ba pare moment détente bi nga xam ne moom ngay noppalu. la nga def ne mhm. entre sportif yëpp di def. Mhm. entraîné. Mhm. dem lekk. tëddi. lekk nelaw tëdd. waaw entraînement lekk nelaw. à part lamb amul benn sport boo xam te ne mooy sport favori. non non defaguñ mais ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi pratiqué am na ñuy pratiqué. Hmm. parce que ñoo ngi ñu ngi bëgg am na centre bu ñu bëgg a dem. Hmm. pour MMA. MMA bi waaw ñu ngi ci doon waxtaan ak suñu suñu suñu suñu lii ménagère. Hmm. xam naa suñu jugee suñu combat bi rek dinañ ko entamé quoi incha allah rabi. coach. coach. waaw. ni sa mbëri moom encadrement bi jaar na yoon de. waaw macha allah. en même temps coach la man maa sécurité comme sànq lu ma la wax sécurité physique. Mm-hmm. intellectuelle. Mm-hmm. esthétique. Mm-hmm. esthétique. surtout loolu morale. surtout morale esthétique comme lu mu la wax sànq. nit da ngay bëgg sa bopp. ce qui fait la part des choses. avec d'autres lutteurs. voilà c'est ça moo tax double job la am si moom. des fois communication am du jaarul yoon sax dama koy ne nii nga war a mm. communiquer mais moom macha allah quoi ñoom mm. ñëpp macha allah quoi. Mm. yaru nag moo tax ñoom bon comme ni ñu koy waxte mënuma wax nag yéen moo hmm. jox may wax ni mais man moom mënuma wax si micro quoi mais ñoom yaru moo tax sax man ma jël leen hmm. yow ñoo ñu defal si Weuze ñoom choc choc choc cent pour cent ñoom ñoom ñëpp ah pare yoo hmm. yaru bi yaru surtout yaru dal quoi te yombul nag ñu leen defloo lii nga def ko parce que tey mënoon na am benn fugg nga ñu yëg seen bopp mais ñoom yëguñu seen bopp ñoom ñëpp lu mu leen defloo rek duñ koy defoo quoi loolu moo tax ma gën a bàyyi sama liggéey yu bëri di ñëw di ànd ak ñoom di leen jox xam-xam hmm. tey jii boo amoon conseil boo ko joxe loo xamante ni war na ko ab yokk wala loo xam te war na ko wàññi lan lay doon lu mu war a wàññi wala mu loo xamante ni war na ko yokk yokk waaw mais entraînement rek affaire entraînement la rek hmm. liggéey la rek liggéey ñàkk jëriñoo hmm. seul le travail paye loolu rek loolu rek laa ko mën a wax ah, parce que hmm. leneen lépp lépp lépp moo koy def mais entraînement rek yokk rek te moom ñamane entraînement. Hmm. ci écurie bi ñëpp ay ñamane entraînement. Hmm. man loolu moo si neex. yokk rek. ñu la tegloo rek nga tegoo ko. c' est l' essentiel. de file bi. tête de file bi Africa moo ngi. Africa. waaw. waaw maa leen nuyu di leen siyaar yéen ñëpp. Hmm. waa site bi. Hmm. Sénégal. 7 Sénégal 7. site bu mag ñu ngi leen nuyu di leen siyaar yéen hmm. ñëpp. waaye ba ngeen ñëwee jël si suñu champion sama rakk. sama lépp sama champion sama lépp. waaw di ko ñaanal ci combat bi mu jëm si. yàlla may ko si ndam lu kawe njottam. te ñun xam nañ ku ñu yor. champion la. looy wër ci mbër yëpp boo ñëwee ci wër fi ngay da ngay taxaw. ñemee na entraînement mën na bëre mm. respecté na ñun ñii di ay magam mm. waaw ñun ñii nii ba mu ñëw si équipe bi ñun la fekk mm. mais respecté nañu jox nañu cër de ba mu bu ba mu ñëwee ci équipe ba léegi benn bët bu ñuy xoolee bëtu grand frère waaw ñun tamit ñun ñu koy ñaanal waaw ci combat bi mu jëm ñun sax xamal lii ni ci bi sax waxuñ ñun roi des arènes la ñu gis si moom waaw ñun waa Yaraax yëpp roi des arènes la ñu gis si moom te di ko ñaanal waaw moog sama rakk yëpp ñu nekk fii comme ay ama mi ngi nii toog jama noir <coughs> waaw champion yëpp ñu ngi nii daal toog mm. Mm. ay ñoom baara waa ñoom original ooyu mm. ñoom ñëpp man bi ma leen di ñaanal lool man mi nekk seen grand frère ñu déggal ma nag jox ma cër bi waaw loolu moo neex ngay ànd ak say rakk ñu jox la cër delloo la ma leen di ñaanal ñoom ñëpp waaw seen combat yi ñu jëpp yàlla may leen si ndam lu koy seen jot waaw waaye yaraax yëpp ñu ngi seen ginnaaw ok jërëjëf waaw da ngay tàggatoo ak mbokki internet yi. waaw sant yàlla rek di gërëm ñëpp xam nga di nuyu sama waa staff di jël nuyoo bi di ko teg suñu président si président bi muy Saataala Mbaye di nuyu ñoom Cheikh Garga Diouf. Mm-hmm. monsieur Daouda Diop Siri Diagne. Mm-hmm. xam nga di nuyu ñoom sàdd mm-hmm. Jibi Konté sama mag yi ñoom Ahmed. waaw di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di nuyu Ngañ. xam nga Aliou Thiam. Laay Gote Thier borom ndaamal daaru bul juum ko nuyu bu baax a baax di nuyu waa Ngaye Mekhe sama dëkk yël <coughs> nuyoo di ko teg ci Talla ak Pablo Fall mm. Njaga mm. di nuyu waa Île du Saloum bi yëpp mm. ma kenn waa Gambul Thiong waa Kaolack Ndangaan xam nga di nuyu képp koo xamante ni amateur lu simple nga rek Weuz Diambar mu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la ziar di nuyu waa yarax gi ma dëkk ay see yi fa nekk yëpp li ko daggee kasank képp endroit jaarawaali mbaxal sanc Dalifort Maris Montagne Bel xam nga cité bi ma dëkk di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp waaw képp kuy bëggee Weuz Diambar rek mm. muy ma xam la muy xamuma la mus naa laa gis mosoo ma gis nga may gis à travers des images maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax di la ziar bu baax a baax di la bëggee mm. waaw di la wax nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp mm. waaw di di di di di liwaale sama gars yi lancé waale sama gars yi message boo xam sama mbokku taalibe Cheikh yi ñu ngi waajal gàmmu gi ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu si si bisimilah rahmaani rahiim ñu jeexle ko alhamdulilah rabbil alamin hmm. waaw ñu dugg ci burdu bi hmm. di ziyaar waale ñëpp di ñaan képp kuy taalibe seex rek ci burdu bi ngeen fasaaleen ma bu baax a baax hmm. baax yàlla defal ñu ndam ci barki nabil Moustapha. amiin amiin jërëjëfal jaajëfal yow ba yow tamit bu baax baax sa disponibilité euh, bañ la contacter pour émission bi. jaajëf waay ñoo bokk liggéey bi quoi. waaw noonu la. soo leen bëggee rek ñun mooy loolu. mun leen dem saa ñu ñu tamit. waaw yéen quoi. Mm. équipe technique bi. jaajëf waaw di montage bi jënd caméraman bi.